lakk gi nga xam ne moo amoon fa yii ci marché Ocass bu Touba te li fa yàqu ci jumtukaay ak marchandise takku lool xalifa général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou yëkkati téeméeri million ci suñuy koppar jébbal ko ñi nga xam ne ñoo di commerçant yi jàppale leen ci métit yi nga xam ne moo dal seen kaw koppar yooyu Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdoul Khadr moo ko indi jébbal ko commerçant yi àndoon kook Serigne Cheikh Mbacké moom Serigne Abdou ak Serigne Cheikh Abdoulahane Mbacké Gaynde ak yeneen i kilifa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 kon nan góor góorgóorlu li ñuy yëngatu nan ko ne danoo jaayante woon joxe suñu bopp ak suñu lépp na istara minal muminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum janna gannaaw danoo jaayante nag joxe suñu bépp tey ëllëg nan xam ne moomuñu suñu bopp dara loolu am nan xam ne sëriñ bee ko moom bu defee bu nuy yëngu nag di ci jiital sëriñ bi ba mu natt mënta ñàkkit bu ñëwee mën naa woyof te bu woyof bu jàllee bu woyofee ba jàllit ak yokk topp ci goo xam ne dañ fàkk fàtti nattu ba kon natt bi yàlla na ci ak yokk topp guñ fàttee natt bi kenn ku nekk la nga ca yàqule balaa nag ne déwén nay asakay la ngay amaat yomb na yàlla yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def kon sëriñ Basiru nee na Serigne Muntaxa mi ngi leen di masawu mi ngi leen di yërëm mi ngi leen di ñaanal xam na ne nattu bi bi mu wàccee ci boppam la dal door ak si seeni bopp ndax moo leen moom moom li ngeen am lu ngeen am moo ko moom kon natt bi ci boppam la daal door a ñëw ci yéen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 nee na waxtu wi dafa xat ndax timis si jot na. te li waroon a wax lépp sëriñ Cheikh wax na ko. nee na kon bi muy ñëw. mi ngi ànd ak Serigne Abdou Lahad moom sëriñ seex Gaynde ma ak Serigne Cheikh Mbacke mu Serigne Abdou Latif mi nga xam ne moo doon wax. moo doon wax ci aw ak ci làmmiñam ànd ak Serigne Abdou Lahad Ka mi nga xam ne. moo jiite commune dëkk bi. ànd ak sëriñ As Jaxate te ñun ñëpp xam nañ diggam ak sëriñ bi nee na kon liñ ciy dolli rek mooy lii sëriñ bi joxe mooy lii sëriñ bi joxe sëriñ bi dafay wax ne lépp loo xam ne njistal dugg na ca wala àdduna dugg ca moom sëriñ Muntaxa noppi na ca loola loolu moo tax sëriñ ba Bachir wax na jarut filmé ndax alal jépp sëriñ bee moom. te it xam na ne séentu leen ci moom alal ndax ak ñaan ngeen di séentu ci moom ndax ak ñaan ngeen di séentu ci waaye nag nee na alal jii nag moom ab caabi rek la boo xam ne da leen di ubbil bunt rek kon nag mu wane ci aw yoon itam mu wane it aw yoon ngir xam ne ngir xam ne li lislaam santaane ci diggante jullit li lislaam santaane ci diggante jullit ak mbokkum jullitam akuk taalibe ak mbokkum taalibeem lu ca waay tanee moroomam ja lu ne na ko ko dimbalee ndax dana tax mu ci moom wasalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw bi commerçant yi nga xam ne ñoo yàqule woon ci lakk gi ñoom ñëpp santaan nañ bu baax a baax Serigne Mountakha Mbacké Bassirou ñaanalaat ko mu yàgg fi lool te ànd ak wér sant ko ci jëf ji nga xam ne moom la wane ci li nga xam ne moom moo dal ci seen kaw. ba mu ko yëgee ba ñaan rek dafa doyoon sëkk ay kaddu ñëw ànd nga ànd ak sëriñ Cheikh Abdou Latif nga xam ne moom moo nekk fa moom ñëwaat fee ci marché bi kon loolu day a dala sunu xel bu baax a baax ñoo ngi lay yóbbante ci sëriñ bi mboolem commerçant yi nga xam te ñoo yaxantu ci marché bi muy góor di jigéen di mag di ndaw ñun ñëpp maase nan sunu xol sedd na sunu yaakaar gën naa dolli ku baax a baax ndax lam ñu waxoon de wax ne yàlla lu dal waa marché bi dal ma loolu waat na ko bu wér a wér a wéru ndax bam bam toqee am na fam sëriñ Cheikh waxoon ko ko lam ñu wax mooy ab julli ab jullit day nangu dogalu yàlla wax la nga xam ni moo ca topp lépp tey jii bu wëlbatiku waatee yebal leen wax di yàlla tey suy mi metti metti metti metti day gën a day day woyof ci bu baax a baax ndax nit ki nga xam dafa tiim alalam ñàkk ko waaye ki nga xam ne moom la yaakaar àdduna ak alaxira su ñëwee defal ko ànd jaag moom guddeeg bëccëg ëmb ko ci biir ëmb ko ci biti lu sunu xol sedd na sunu xel sunu xel dal na sunu yaakaar gën naa dolli. maire bu Touba di Abdoul Ahad Ka mi nga xam ne fekke na jotaay bi moom it ñaaxaat na ñi nga xam ne ñoo di commerçant yi. ñu wàkkiirlu ci yàlla waaye doon taalibe Serigne Touba te wóolu ko te xam ne lii yàlla def dafa gën ci ñoom. te yërmande ju rëy ja ak xam ne lépp alala ma nit ñi aw nite ma mu mu daal di lim bi indi ko jox ko ne nañ ko dimbandikoo ngir kenn ku ci nekk na nga fa nekkoon di liggéey. nga mañ a am benn jafe-jafe ndax nit bu fekkee lenn rek la tiimoon yaakaar ko ñàkk ko su amul ndimbalal yàlla ma lu bare ñu baree bari mën nañ cee doxee euh, ba ba seenam xel jax-jaxe wala ñu sonn te sëriñ bi loolu lépp lañuy ñuy bañal day bëgg ñu gën a gëm sëriñ Tuubaa te lii moom ak wane la tax daf leen a wan wane ne nekk ci sëriñ Tuubaa li muy jur ndax nit koo xam ne loo dugg ma defal la ci loo yaakaarutoon te mënoo ko te boo doon def doo mën mënoo koo defal sa bopp loolu kat ku la ko woon li arab di wax meraaran wax dëgg yàlla boo dee boroomam xel wara a xel te bët bu yàlla sàkk mu génne leen ci géej mu génne ñu ci géej dex goo xam ne sudu suduloon ak moom dañ cey lab kon nag ñu bàyyi xel ci ndigal li bàyyi xel ci sàmmante ak nit dëkk bi mel di rafetal doxin wi di rafetal jëf ji di rafetal waxin wi di rafetal nekkin wi ndax loolu bokk na ci li nga xam ne moom la ñuy ànd ak sëñ bi di sant ñëpp di gërëm ñëpp ci turu commune bi <coughs> di ñaan nal Serigne Mountakha yal na fi yàgg te wér ba lépp lu mu yéene ci yoonu Serigne Touba yi yàlla may ko kattan ak am xel ak fan bu mu ko defee ndax ku mën a dalalam xel la nit koo xam ne boo jàqee mu defal la boo amee boo ñàkkee mu dimbale la loolu kat la nit ñu tey sa yaakaar yi addina ak àllaaxira loolu kat la nit mën a lépp sëriñ mënal ab taalibeem kon nag ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan na na li comme nii mu ko waxee lii nga xam ne caabi la joo xam ne a ah, mu ubbi xéewal yi du xéewal yi du jeex mukk ci àddina te comme ko wax nga war ci xam dara de ndax ñu bëree bëree bëri de classe ak ba ci as jaxati mii di kenn ku ci nekk ñëw duwaat ñëw ne fii ne tungaañ sa bagage wala nga am jafe-jafe maanaam dem ci sëñ bi mu ñaanal la ba ngay laata am weer wala ñaari weer nga romb li nga defoon ba ci man nii jam bi may tàmbalee liggéey fii 93 ja awma lu dul yenn trois millions di tukki aéroport ñu nangu ko ma dem ci Serigne Saliou ne ko ah man de sama li ma amoon dañ ko nangu fekk ma gasab terrasse di ko fondation poto ya ma daal di ñëw ne nañ ko suul ndax xam naa ne dootuma am lu ma ko liggéey bi ma demee di ngir ma bëgg mu def ci intervention ci état bi mu ni ma Abdoulaye dama lay ñaanal ci yàlla yónent bi Sëriñ Tuubaa mu wuutal la lu gën loolu maa ngi waat ci alxuraanu karim suulu ma potee tabax ba bi may laata am ñeenti weer maa ngi 72 million te 3 millions laa am kon sëñ Tuubaa rek fi nekk mhm. sëñ moo gën a gaaw moo gën a sakkan nañ ko gëm te jàpp ko te wóolu ko te gën a xam ne ak taalibe moo woom nax ak taalibe moo gën a gaaw ay taseer boo gëmee Sëriñ te nekk ci diggante taseer ak taalibe gëm si Tuubaa ku gën a gaaw téeméer yoon loolu bu ma ko waxee ngeen xam ci dara. ci fàttali bi lakk gi amee bi biñ ko waxee Serigne Mountakha Mbacké Bassirou yëkkati woon na ay kàddu defalaat mbooleem ñi nga xam ne ñoo yàqule ci lakk gi delloo leen ci yàlla suñu borom ndax lépp lu mu def daa gën.